sëriñ bamba laay wayal borom tuba makke dana la waye xaatit moo rasulullahi moo seexal seex ibrahima faal seexal sama paate maami sëriñ Ousseynou Sylla sëriñ fu diwaan seexal sama baabu gay yar waay maami la waye xaadimoo xaru xaadim Bamba yaa tu mamá por dem na ko tuume dem na daw mi lambarana bamba fa daan doju ngor wa bamba fa daan raka ya géej bamba fa daan dem na ko tuume dem na daw mi dem limbelu weli bamba dem na Grand Bassam Serigne Touba Touba borom jaare sa Bamba yaay borom magal ke Serigne Touba moo Bamba demul sabo moo jaari lu mel weli dem na ko tuume dem na daw mi la barana Bamba fa daan rajo ngor wa bamba fa daan raka yege bamba fa daan dem na kutub ma dem na daw mi dem lim belu yeli bamba dem na grand rasa Sëriñ Tuuba juma je Amadou Bamba borom juma je Cheikh Amadou Bamba borom magal ge Amadou Bamba borom jumaa ja ah Mame Bamba yaay borom magal ge Amadou Bamba borom jumaa ja jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba mim réew Bamba ko moom réew mi Bamba mooy kii ko moom jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba lu nu baa dee lu ci mën a doon aa ah, muridu laay dañuy màggale lu ci mën a mbokk yeeg xarit yi nuyu nañ leen bu baax ziar leen amaat mbégte ak kontaan te jàkkaarloowaat ak yéen comme saa su nekk ni ñu koy defee nee naa leen nii lañ koy defee xew-xew bu am dañu ci ànd ak tey nag ñu ngi fii si ñaari tali ànd si ak ñan waa Sidi Family euh, comme saa su nekk ni ñu koy defee am na sama naataango bu ma toogal dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo bu ko defee ñu daal dugg si waxtaan bi bi nuyu naa la waaw mbet maa lay fay ci jaamu waaw wasaare sama kër maa ngi si jaamu dama lay bàyyi nga présenté mhm. man la Mame Fallou président Sidi Family waaw ñu nekkoon fii te ñaari tali doon def suñu troisième édition muy ndogu Sidi famille bi waaw macha allah fii suñu kër la waaw dañoo ñëw suñu kër tey. wàllu euh, euh, ndogu yi nu mu demee euh, maanaam wàllu financement ndogu yi. waaw ah, wàllu financement yi moom gars yi sax dañ ma koy laaj mais lépp nag dafa déparé si ndeyu mbili gi Sidi jaar si waa Sidi famille ñoom ñëpp ñu jaayante ko jàpp si combat bi tey boo gisee lii rek xam ne ndogu yi macha allah du ndogu lu tuut Sidi dugal si loxoom waa Sidi famille ñoo fekk si ko si. and c'est que marraine aussi di famille mu ya aw aussi en même temps ñëw dal def ndogalu muccu ay macha allah ndogu loo xam ne amul fenn fenn fenn macha allah. ñu hmm. gis ne premier jour ndogu bi ngeen def ko ñaari tal lan mo waral cible ñaari talib wa ñaari tal sama dafa nek 16 bo xam un jour dafa ñew certi ma ñew ñëw sama kër. retourné ko man fi la dëggee jaar deux voix yo xor grand fallu fi mom de koñ bu ma neex la man ne ko say sopé fi ëpp. mu ne ah bon mu ne ko waaw mu ne ko nag pare naa pour ñu tek fi concert. mu nekkoon lu mu nekkoon loo xam ne sa jàppoon nañ ko mais corona bi tënk ko ñu jóge fa ne comme loolu amul il faut que ñu teg fi benn ndogu boo xam ne dañ koy def chaque année. muy suñ troisième édition ma ne ko koy bee ñaar tëli kontaan trop rafetlu ko moo tax ñu ñëw ñaar tëli fekk fi waa ñaar tëli ànd ak ñoom si ndogu bi dafi ndogu boo xam ne ñoom ñëpp tamit waaw ah, boo gisee fii embouteillage bi fi am boobaak léegi ak nit ñi niñ génnee moo lay wan ne la euh, namoon nañ si te bëggoon nañ ko gis yàkkamti woon nañ ko si gox bi waaw fii këram la kër Mame Fallou këram la kon euh, maa ngi koy rafetlu lool waaw ñaatali moom suma kër moo tax lu ma fi def réccu ma ko te lu fi si di def tamit réccu ma ko. Mhm. ndogu yi euh, ñaata ngeen fi maanaam financement ndogu yi ñaata la. waaw ah, loolu moom day day xaw a woo ko ndax parce que dañ ne boo jiitee da ngay am bureau. bureau day am trésorier am commissaire de compte ñooñu nag ñoo yor wàllu bilan bi ak financement bi ak yooyu man dama jiitu rek ne leen lii laa ko bëggee ñoom ñoo loo xam naa nag bu affaire jàllee war ñu seet seewaatee <laughs> bu ñàkk sax ñu la ne leen lii lañ ci dugal mais daal xaalis bu euh, mu gis ne premier jour bi yan jafe-jafe ngeen ci jànkuwanteel. non bi ñu fi ñëwee ne alhamdulilah fekk si waa ñaatali ki fi nekk mu nekk sama frère di Modou mu dalal ñu. dalal ñu dalal lu mucc ay dañu bitig baa ngi noonu suba léegi dafa génn bitig bi dem yoonam nañu bitig baa ngi noonu yow fii sa sa kër la loo fi bugg rek yaay bañ si suba ba léegi ñoo occupé fii yëpp fii ma nga restaurant la mais dañu jox ñu ko magiquement nañu lu leen neex def leen. kon nag maa ngi koy maa ngi koy delloo ngërëm di ko gërëm grand Madoune kontaan naa si yow kontaan gis naa ni nga ñu taxawoo jàpp nga si war nga ñu ñëw fii suñu yëf la luñ ci soxla rek mooy loolu. waaw li li may ñaan waykat bi rek mooy que ni concert bi nañ ko nañ ko nañ nañ def fii doog a dem Medina à la bëri Géejawaay incha allah. léegi ndogu ñu xaaraat leen feneen wala benn ndogu bii kese lay nekk si weeru koor. non dama ko doon def deux ba trois ndax parce que xam naa suñ jugee dañ ndax waajal géej waaye mooy deux bi incha allah buñ si jugee rek ndax affiche pare na mais dañuy génn ñu def waxtaan def table bureau bi waxtaan ñu lancé affiche yi waajal dimanche bii di ñëw géej waaye incha allah buñ paree lancé waat beneen bi incha allah. liggéey bi ak weeru la demee. waaw doon na nag lu métti mais nag sant yàlla nee na mbégte moom boo si nekkee di def loo xam ne mbégte nit ñi la boo si gis coono ndax parce que man lu meti métti métti ma si dara ndax parce que boo xoolee yëf yi dafa tombeeg mbégte mu muy bisu mbégte ñëw fek si ñoo xam ne waa mbégte lan kon bég rek lañ ci am dañ ciy bég fii daal li ma fi wan waa mbégte la rek coono gisuñu ko luñ fi def ah lu waay def rek da koy gis te macha allah sant yàlla daal alhamdulilah la ñuy wax. lan lan ngeen seetlu ci euh, premier ndogu yi bi nga xamante ne bi ngeen koy def euh, deuxième fois di ngeen si jël ay ay mesures yu kii. waaw moom moom mooy li ñu wax rek. ku mel ni Sidi Diop fu mu jaar trace dafay ba bi nekkee Medina noonu la demee kii du ma bàyyi ma fen da nga daan gis gars yi dañuy bàbbeekoo fu ne ñëw fii tamit même chose Sidi fu mu jaar nit ñi bëri fa lu mu métti métti mënoo fee teg sécurité boo xam ne mën nga nit ñi bëgg Sidi nit nag bu ñu la bëggee nga ñëw si zone boo xam ne ñu ña fa nekk dañ laa bëgg foo jaar mu déborder am ni mën na ñàkk kenn dana naan lu waral lii mais comme gis nañ lii nag dañuy sant yàlla di ñaan bu déwénee yàlla yokk bu affaire yi gën a kii saawaan baawaan incha allah. merci beaucoup kontaan naa wax waa wasaare célébrité. Eh, waaye balaa booba damay gërëm waa Sidi Family ah. xale yi njaboot gi dama leen di gërëm di leen jox mention spéciale di gërëm sama waa ji kii moo nekkoon président Sidi Family avant Mame Fallou mu liggéey fi loo bi ma ñëwee si yoon boobu laa tegu te réccu ma ko muy Tamsir ak Bira grand Malick ñooñu ñoo sos Sidi Family ma ñëw ñu yaatal ma muy jëmb ji. mom mi sax da ngeen ko wara set ndax mom warna na si am lu mu kàddu sa kàddu yi waaju bax ma bi affaire yi ki dama na ma fan boulangerie amat ma dem doli affaire yi ndax lan xër gi mu am si Sidi Family ak si wa Sidi Family kon tam ma lay ñaanal li nga bëgg ya yalla ko ya ya ko xam ak yalla li nekk sa xel te yalla na rafet sa njortu te yalla na ko yalla suñu borom defal yaag bira sama doom nday ñe gëreum wa Sidi Family gi yep yep bàyyiwuma kenn bureau Sidi Family Sidi Family Sidi Family international ak si di famille yi nekk Dakar yëpp yi nekk si région yi Kaolack am na ñu jugee ba Kaolack am na ñu jugee ba Mbour am ñu jugee ba Louga sax ñëw kon ñooñu tey amuma seen gërëm maa ngi leen di gërëm au nom de Sidi bi yëpp yëpp yëpp Sidi famille ca kaw ca kanam li si kanam rawatina bët incha allah. <laughs> Wassare TV suñu télé. ah waaw Wassare TV wax ah, tey ma dee di tamaa su kontaan d' accord léegi. waaw d' accord. <laughs> d' accord waaw d' accord si kaw wasaare célébrité boobu ngay wax muy. waaw wasaare dama nekk suñu télé. mën naa ne édition yi nii def yëpp wasaare mi ngi si biir fu ñu dem mi ngi fa ñu nag moom ba Tivaouane ñu nag moom ba Thiès ñu nag ñu moom waa Dakar yow suñu télé nga ñun ñoo la moom. yow moom dem Bercy moom équipe bi day ñëw TV. salaamaaleykum sëñ bi nuyu naa la. waaw fay naa la soxna si. yaa ci jàmm. alhamdulilah ñu ci jàmm bu baax. naa bàyyi nga présenté sénégalais yow la kan. waaw man la Tamsir nag di doomu ndeyu Sidi Diop Sidi ñun ay frère lañu parce que du du du moo ñu boole war a dara ñun ay frère lañu. yaa ngi si jàmm. man si jàmm bu baax a baax. sa jàmm nga ma xëy nañu xam lan moo waral sa teewaay fi. waaw xam nga ni Sidy euh, Family bu defee ndogu ñun di ko biir ñaari tali ci sa fief la boo xamante ne bi c'est une boo xamante ne ñun ñëpp benn lépp benn la kon ku ne am na ndogu sa kër mais buñ ko génnee di ko partage la boo xamante ne xam ne ndogu ci mbedd bi la leen di fekk du coup ñu génn ko daal di koy séddale comme Sidy Family ñoom man lañ jël daf leen def ma seen marraine loolu rek moo waral ma ñëw fii. mais xam nga àdduna kenn ku si nekk am nga nit am nga lenn looy àndi ak nit te nit ku nekk lim la ji ba tax nga jàpp ko yow yaa ko xam du coup loolu rek la à part ça Sidi Family sama Sidi Family la et que c'est une famille boo xamante ne bii lu dul jeex la daal. Mhm. naka nga gisee naka nga gisee idée bi. mais eh, naaj parce que joxe ndogu moom ku ne xam na ni mooy loolu te man sax damaa wooroon dégg nga fi mu ne nii damay ndogu dama sonn. <laughs> waaw kontaan rek. tout d'abord damay waa Sénégal nuyu àdduna bi yëpp nuyu askan wi. Nous aussi sama sama sama sama njaboot bi ma fekk famille nga xam ne nañ fépp di li nga xamni ne bi ci nepp yol bi ci nek ken xamul ken xamul num tollu donc ne ma nak dañoy bëgg ñew nga nga ñëw gunge mi ci ci ñom la ñëk contane do ñew tamit fi xama Grand Dakar distribué ndog yi contane gis ci xama ñom ñëpp ni ñuma ma accueillir ak ne mu démé ma leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di leen di leen di leen wax kooru jamm di leen nit di leen balu ak te di leen ko bal deug la euh, Sidi ñu gis tamit nga cible fi nga xamantene tay moy euh, ñaari tari lan mo waral cible bi. waaw euh, parce que do cible parce que yi mako doon def mais buma démé ba sama sama Sidi xam li dajalo diko def du ñaari tali rek war nañ dem Pikine war nañ dem war nañ ko tëju aussi way sama fief war nañ dem war nañ dem keur massa rek Medina dafa lañ ko don dañ daan nañ fa dem daw yëmbal war nañ ko def fepp du Grand Dakar rek fepp fo xamni suñu soppe nek na fa rek Sidi Family nek fa dañ fay dem rawati na nag suñu president bi nga xam moy president ci Sidi Family yëpp mom fi la dëkk mo tax ren ñu ñëkke ko fi sagal ko xam wan ko moom tamit lim ñi fekk si ñu nit mën nañ ko fekk ci après buñ fi jógee war nañ dem Pikine war nañ dem Guédiawaye war nañ dem fépp incha allah yan jafe-jafe nga jànkonteel ci séddale bi. non amuñu ci benn jafe-jafe amuñu ci benn jafe-jafe liñ ci jàngat rek mooy nit ñi dañ laa bëgg parce que nit ñi kenn moomu leen boo génnee ñëpp génn ñëw di la jàppale sax nga gis ñi ñuy jàppale di di la joxeel ñii ñëw xama ñëpp ñëpp ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo far ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi aw ma ci benn jafe-jafe parce que ñoom lii la ñu am ci suñ jëmm yi mooy ñu génn ñu gis ñu nuyu ñu béggee ñu kaf ak ñun réew ak ñun après benn trente minutes la ku nekk ñibbi waaw aw ma ci benn jafe-jafe au contraire dama ci kontaan waaw waaw fansam laa. waaw ndax xam nga Fallou man fansam laa. Fallou moom fallu Sénégal la. comme turandoom rek sëñ Fallou Sénégal. moom suñu rakk la suñu jarbaat la suñu lépp la. muy mu mu baax loolu ah. di di bégloo nag ñëpp ñëpp bëgg Fallou ko bëgg dañ koy ñaanal yàlla rek jàmm cat fexlu ko a ah, cat bàyyi ko fi mu gudd fan wér yàgg duñu bégal waaw man moom man fan sam laa waaw nday Ngoune Ndiaye waaw <laughs> waaw waaw dañ euh, son yoo xamante mhm. loolu moom pour dire vrai nag bu ma sañoon ñu wax ci li nga xam ne mooy koor gi kon ko ci koor la ñu nekk di distribuer ay ndogu ñu wax ci loolu loolu nag beneen interview dinaa ci mën a tontu. mais comme que tey waa dëgg la dëgg la dëgg la mais comme que ci koor la ñu nekk xam nga ci ndogu yi la ñu nekk man je préfère bien ñu concentré wu ci yooyu xam nekk ndogu yi nekk ci koor gi ba koor gi passé après nag yeneen yi nga xam ne moo jëm ci mbirum saayir beeg musique beeg kii ak kii après ñu développé ci amul benn problème yàlla ngeen am jàmm ma am jàmm ba fu ñu dajante mbiri neex kontaan kontaan ci yéen ah. waaw. waaw financement bi. pour diir vrai nag Sidi famille bi ñoo def lépp waaw ah, man aw ma ñoom seen fay ñoom ñoom li ñuy def ci man man mënu ma leen ko delloo xaaruñu ma ci dara. lépp lu ñuy def ñoom dañu ma bëgg te yàlla tax dañuy yëkkati seen lépp di ci def barki Serigne Saliou Mbacke man bala maa ñëw bay def ñoom fekk naa ñu defar lépp kon loolu mooy wane ne ñoom jàppeetuñ ma sax kat frère lañ ma jàppee ñi ñi ñi ñi ñi seen grand frère ñi ñi ñi ñi ñi ku ñu bokkal nday ak baay donc maa ngi maa ngi profité tamit ci occasion bi di leen nuyu góor yàlla di nuyu suma doom jigéen yi maa ngi leen di nuyu bu baax am na ñu jugee ba Tivaouane am ñoo xam dañoo jugee ba Kaolack ñiy jugee ba géejawaay ñiy jugee Louga parcelle fu nekk xama gars yi juge fa Tivaouane donc maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di remercier di ko teg ci loxo nag maam Fallou mi nga xam ne mooy président bi aw ma fayam yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla bàyyi ak ñun yàlla yàlla yàlla yàlla def suñ diggante moom gën a ratax gën a neex ba liggéey bii ma ko dénk mi ngi koy wéyal te kontaan naa ci mais yàlla may ko kattan ak doole ak xam-xam bu mu ko gën a mën a wéyalee ci barke sëñ Fallou Trondoom waaw bien sûr bien sûr war nañu dem Pikine war nañu dem Yëmbal war nañu dem Medina war nañu dem Géejawaay incha allah waaw. mais Sidi man amoon naa benn question quoi ci groupe WhatsApp yu bari yi may dégg ñoom amuñu njariñ. Ah. gis groupe WhatsApp Sidi famille yëpp. Hmm. ñoom ci social la ñuy hmm. ñoom idée boobu ndax yow yaa leen xelal xel moomu ñu ciy dox wala ñoom seen i bopp. déggoo li ma la ñoom ñoom ñoom ci gis mu rafet rek. Sidi famille la. ñoom ñooy ñoom ñooy defar lépp. groupe whatsapp Sidi famille yi ngay gis ak dox ci social ak yëpp ku gis di nga yaakaar ne ne ci kanam mais ñoom la parce que man aw fan club am man ñi ma àndal ay famille la ñu ñoo bokk ndey gis yëpp ñoom la man damay ñëw rek nekk ci ginnaaw defar aw ma seen fay te bu ma amoon loo xam ne lii bu ma leen ko joxee mooy fay leen def naa ko bu yàgg yàlla moom fay te dama koy bàyyi ak ñoom mais tamit di remercier tamit presse bi nga xam ni maa ngi jéggalu sànq bëggoon nañ def benn interview mais dama bëggoon jox nit ñi ñu ndogu ba pare parce que kon dog moom fara waaw. est-ce que yeneen séries familiales yi nekk ci région yi. waaw comme waa Dakar wala. waaw ñi ngi koy def bu baax a baax a baax te Sidi famille bu ci nekk yaa ngi yëkkati kenn moom laa wax léegi am na ñu jóge Louga am ñu jóge Kaolack kenn ku nekk yaa ngi yónni kenn pour mu ñëw teewal la fii ñoom it ñi ngi ñi ngi ñi ngi toog ci seen koñ di defar yu baax a baax a baax a baax maa ngi woon ci sànq xam nga xam ko dog farata la moo tax ma bëggoon a jox jaamu yàlla yi ñu dogg ba pare mais maa ngi jéggalu parce que Sidi moom mënu dem sans presse bi bi tamit xam nga du dem sans ñun ñun duñ dem sans ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi maa ngi leen di nuyu bu baax baax waaw li ñuy ci korite gi war nañ def benn tournée tournée bu ndaw war nañ dem jour korite war nañ dem Mbacke tëggal waa Mbacke foofu ci euh, verdure bu Mbacke ànd ceeg euh, suñu suñu benn xarit góora buñ fa jógee nag laan demee korite war nañ dem Kaolack fii di famille bu kawlak maa ngi leen di nuyu di leen wax ngeen waaj foofu ci cœur de ville ànd ceeg suñu mag suñu xarit Ibou Bambara ak waa Super Étoile buñ fa jógee euh, ci ci ci ginnaaw suba si ñu war a dem Bargny Ka Moussa jum bu Bargny ah ànd ceeg caan suma mag donc waa Bargny nañu ma xaar buñu korité premier samedi bi buñ ci joggé ci samedi bi nak ci dimanche bi ñu dem directement lugolo fété ñom Mbaye Tama ah, suma mak ñu war fa tëgg tamit concert bu mak fofu ci stade bi donc wa lugo yépp ñing leen wax tamit ñu wajal wa ah, kaolak wa waa ak waa Mbacké Sidi mi ngi ñew inshallah Sidi bëggoon na xam nimbal bi ngay def ni ci wéru koor gi ni social bi ni wéru koor gi la nga lay wala après koor gi tam day continuer. wa ñing koy def ñing koy ñing koy def bu baax ñing ci gor gor ciy avant koor gi ñing koy def ci koor gi tay bëgg nañu suñu borom dañu may kattan ak doole même bu sax koor ñu di ko def ndax ñun nu ñu mel rek jaamu yàlla yi la lépp lu ñu leen jox dañ ñu lebal rek. waaw lépp luñ jollawaat nit ñi dañu ko lebal bëgg nañ sax bu koor gi jeexee ñuy def geste yu mel nii di ko jox jaamu yàlla yi delloowaat leen seen cër ci ñun waaw. waaw. waaw li ma leen ciy wax kat loolu moom ku xam Sénégal xam ne bu koor jotee moom foo tourné jeunes yëpp a ngi génn takk seen digg di defar ay kafe rawatina ak Baye Fall yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci koñ-koñaat yi xam nga foo foo leen fekk ñi ngi teg seen kafe di ko distribuer ci jaamu yàlla yi tey bu ma jumul euh, fekk nit ku woor ba ngoon nga jox ko mu dog yool bi ci nekk loolu yàlla rek ko mën a fay jaam mënu ko fay parce que xamoo am na ko amu ko nga yëkkati ko jox ko ko mu ndogu ñaanal la kooku bu la ñaanalee lum ci ñaan suñu borom mun na ko def donc gars yi Baay Faal yi nga xam ne ñoo ne ci koñ yi di teg café yi ak ndogu yi di ko séddale yàlla na yàlla fayal leen seen bopp ñi tamit ñun ñii ñuy def nii tamit xam yàlla nañu suñu borom fay ñun ñëpp waaw ñu bokk ko te it di wax jeunes yëpp lii moom ku ci def yàlla moo lay fay waaw waaw seen këll mooy yoon parce que man tamit damay génn ni ñi di yëkkati seen poche di ma jox te sëñ Fallou nee na ku dul ñuqi doo ñuux waaw kontaan naa ci gars yi ah presse bi maa ngi kontaan yéen ñëpp ba pare presse ba pare presse bi gis naa fi ñoo xam ne xam naa ne Ndiaye lañ sant ñii Diop lañ sant parce que gis naa fi ñaari caméraman yoo xam tuuti ñu mbëkkante da ngeen a xiif rek mais jàmm ci yéen yàlla ngeen am jàmm ñëpp